بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه رب اشرح لي صدري <clears throat> ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا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 mboolem lim def lepp yalla gërëm ko te nangul ko ko te tass ni ci barkem muy jëm jo xani liggéey na liggéey bu reuy ndax liggéey yi mën nañ ne bu yemoon ci benn liggéey benn la jullit ni rek dañ doy sëkk te bimu mu taxna digënté na diggante murit yeeg tijaan doon dal kon nag liggéey bu rëy la boo xam ne dara ëpp ko solo ndax yàlla lu nit ñi gën a booloo rek moo ko gën a teqale koo gi neexu ko suñu baa wax nañ ci alxuraan ba tey ne wala tanaazaxu fa tafshalu wa tadhaba rixukum waatasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu wax na ne na ngeen doon benn te mooy ci buumu yàlla gi mooy lislaam te tarixa yi itam xam ngeen ne ñi ko sos defuñu ko ngir teqale nit ñi mi ngi mel ne nit ñi jëm Tuubaa rek kee jaar ci mbedd mi kee jaar ci mbedd mi kee yor oto kee yor fas kee yor mbaam loolu mooy tarixa yi maanaam jumtukaay la ngir àgg ci yàlla jumtukaay yooyu nag wërtu doon luy teqale nit ñi benn la ndax jubluwaayu benn la tarixa yépp leen yitteel mooy àgg ci yàlla bu ko defee nag kenn ku ne sëriñ si mën nanoo gënante ndax yow mën ngaa dugg ci oto kee dugg ci war ci mbaam masala waaye yàgg-yàgg bu dëpput dana dem dana àgg ci dëkk bi kon teqale ko gii di am ni ci biir jullit yi te wërta nekk ci tarixa yi jullit ñëpp rek teqal ko ci mom mo baxul yonte bi mësu ko bëgg dara wax ne yalla nimbalam ak jappalem ak samam mi nga ànd ak mi la koy la koy defal yadullahi maal jamaa <coughs> su ko defé nak ni tilli fad moy ñi nga xam dañu ñoo beddiku wax ne ànd ñom nit kon cheikh siril muxtaar yalla ñu ko yalla fayal liggéey na liggéey bu reuy bu ñëpp gis bu yemoon ci benn la jur ñi rek mu doy sëkk waaye def na liggéey yeneen yu bari ndax ku dëdd àdduna la woon jamono ji ñu itam nga xam ne àdduna dafa fabbi nit ñi bari na léegi ñoo xam ne ay sëriñ ñu doon waaye boo ko demee àdduna rek nga fekk daanaka Cheikh Sidi Muxtaar nag àdduna wut si woon na ko waaye mu da ko dëdd woon àdduna loolu ba tey bokk na ci jikko yi nga xam ne mboolem murid yëpp rek ak koko mas xam rek doo ko fàtte ci moom ak itam jumaa yi sëñ Tuubaa ji taxawaay bi mu ci taxaw ci defar ay jumaa xam ngeen ne xilaafam sémb na fi jumaa yu rëy mooy jumaa jee ca Ndakaaru ak jumaa yi Tuubaa ji te yooyu itam yitte sëñ Tuubaa la woon sëñ Tuubaa sëñ Mbàkke bu sa dafa wax ne bi mu fi jógee ñetti mébét la fi bàyyi ñetti mébét la fi bàyyi benn bi mooy <clears throat> bëggoon naa aji mag te jot aji mag bëggoon naa tabax jumaam ji ci Tuubaa ba àgg te jotu ko def ñetteel mooy bëggoon naa tabax daara joo xam ne lu waaye di jàng ci réew mi boo ñëwee mën ko faa jàng te loolu jotu ko def moo tax suñu mbàkk ba am mébéti àdduna ñetti mébét rek yooyu la fi bàyyi wale nag boo gisee Cheikh Sidi Mokhtar moom ma nga ci woon ndax at mu ne daanu yóbbu lu bari ci mag at mu ne daanu jël xanaa gën jaa néew ñeent fukki nit yoo xam ne moo leen di paasal fayal lent te loolu ba mu doon gut la ko tàmbaloon mu toogee xalifa gis nga jumaa yi la di tabax te rawatina jumaa ji Tuubaa Sëñ Tuubaa ko fonkoon lool ñu bari sax ci ñi xamut dañuy wax naan jumaa yu bari yeeg xaalis bi ñu ci def fekk lu am maanaam jumaa Tuubaa am lu ñu ci def rek doyut ndax Sëñ Tuubaa da ko fonkoon ko fonkon lo gis naa ci mbindam min ci téere bi ñu tuddee kalim nga xam ag na ci wax ne ku ko sik sama juma ji ku sik ne dana taxaw yalla ci wam nga sik sak ana da ko daari yon ci mom lol gis itam cheikh sidi ahmad wul du ismo ci téere mi mu maqalat fil hadithat wax ne bi daana wax ne sama juma ji de bis bu àggee <coughs> bis bu àggee lu bari soppiku gu rëy dana am ci lislaam gu ñepp gis boo gisee daanaka xalifa yi fi jaar kenn ku ne bu ñëwee yitteem mooy nekk ci di defar ak defaraat borom daarul moxti mi itam am na nettali bu ñuy nettali boo xam ne moom day wax ne ci jumaa yi mbirum jumaa ji ci la amee lu rëy loo xam ni ñu bari amuñ ko te mooy boobu sëñ bi da ko woolu ne ko bi jumaa njaareem ji àggee rek ne ko dama bëgg nu tàmbuli jumaa ji Tuuba nee na borom dalu mooti wax ko ne ko xanaa kon de dañ ci sàkku ndigal ci tubaab bi ndax boobu sëñ bi résidence surveiller da bu jëkkee ki tabax juma tubaab bi mën nañ ko bañ a amu ci autorisation te baa mën nañ ko ñëw fekk mën nañ ko jàppaat sax nag résidence surveiller da ne boobu léegi borom daal muti moo tax ne ko kon xanaa dañ ci sàkku ndigal ci tubaab bi def demande ba sëñ bi mer nag mer ci wax jooju mer mera mer nee na ba jug bàyyi ko ci ëllëg sa nee na borom la moo nee mu waat ko waat ko ne ko sama jumaa ji ci Tuuba laa bëgg ñu tàmbali ko borom borom daal waxaat ko lam ko xam ne kon kon xanaa nan ci sàkku ndigal ci Tuuba yi nee na sëñ bi ne cel mer meraay moo ne bu fekkoon démb fukk la mer tey ñaar fukk la meroon mer ba jug bàyyi ko fa moom maanaam mer gi mooy tàng rek tàng lool ñetteelu fan ba nee na mu woo ko ne ko jumaa ji daa bëgg ñu tàmbali ko borom doon waxati ko lam ko waxal ndax loolu mooy xalaatam ne ko dama bëgg kon nan ci sàkku ndigal ci tubaab ne sëñ bi bu fekkoon démb ñaar fukk la mer tey moom ñeent fukk la mer mer mu rëy ne cel ne cel ba yàgg nee na mu woo ko ne ko kaan dem nee ba ci digg kër gi mu am fu mu ko taxawloo nee na bi mu taxawee sëñ bi won ko lawaxul maxfuus lawaxul maxfuus nee na mu gis ko yër ko ba gis la ca ne lépp mu ubbil ko geneen wet ga nee na day ñaari wet nee mu xool geneen wet wetu ñaaral ga nag nee ca la fekk mbirum jumaa ji ne yàlla may na ko ko te dana taxaw te dana àgg may gi ko yàlla may te mu wër ko ne dana am lolu motax manam maanaam tubaab yoy gis yoonu seen yoon nekku ci buñ ci ande buñ ci ànd dana am lolu moy taw señ bi don don don don don tak mo do borom dara moo daan ci la amé lolu ci mbirum juma ji do señ mu rusu ala ko don wax ki mu ko nettali muy señ ko do ñaan mom ki ko nettali mooy señ ma jabel ak bëkk néegu borom dar moo fi bo xani mom da dégg mbir ma bañ ko waxtaan ko dégg <coughs> kon señ bi juma ji ñor nako moo tax xalifa yi fi jaar ku ci ne di ci jëf te bu dee wàllu xam-xam it gis ngeen université bi tàmbali nañ ko ñaari at yëpp ñu ngi koy sonnee ci ñaari at yi mujj yàlla boog ñaari at yi de ñu koy soññee ne dañ ko tàmbali te sëñ bi tàmbali na ko itam kon mébéti sëñ Tuubaa yi mu fi bàyyi woon yëpp boo seetloo mi ngi ci doon dox kem kàttanam bokk na ci sëriñ si nga xam daal wax dëgg yàlla néew nañ ci jamono te itam dañuy gën di néew ndax àdduna fabbiwu ko te ku dëdd adduna la woon siyaar naa ko yoon fii ci dëkk mi ñu wax taw feex waaye ci mbaar mi nga koy fekk te ba wax bu dee waxtaan nii xëy du ñëpp lay waxtaan waaye ci waxam da gis ne kii àdduna sax daanaka du ko loolu nag kon ku mel noonu bu ko ñàkkee day doon lu rëy ci lislaam ci lislaam bi yëpp ndax ñiy bennle ak ñi nga xam ne yàlla rek leen ñor ñuy wax nga xam ne dañuy wax ngir yàlla kese di bennle jullit ñi jàpp ne jullit ñëpp ay jullit lañ wax dëgg yàlla day day day gën di néew moo tax ñu mel noonu perte la bu rëy wax ne maanaam borom borom xam ku baax bu demee këggu moo dem këggu këggu moom moom tax yal na yàlla def ci ci des mu niital leen yoon wi bañ tegu ci tànk yooyu nga xam ne mooy tànk Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa dafa amoon mission boo xam ne moo ko taxoon a jóg mission boobee nag mën nañ ne mooy tasaare diine ak dimbale nit ñi ñaare daanaka génn ko dimbale nit ñi ci jubbanti leen ak jubal leen ak luy jagal seen tey ak seen àll waaye wut àdduna du woon yitteem <coughs> wut àdduna du woon yitteem kon ñoo ngi ñaan yàlla yokk ko leer te taas nu ci barke te sëriñ bi ko wuti itam mu Cheikh Mouhamadul Muntaqa ñu ñaan yàlla yàggal ko lool te ànd boole ko ku wér ba moom it mu liggéey liggéey yu ñëpp gis daraja Sëriñ Tuubaa ginnaaw loolu noo ngi tolloon ci lettre bi nga xam ne <coughs> sëriñ bi moo ko bind joxoon ko borom Daaru Muxti waxoon ko ne ko na ko ñëpp gis murit yépp kon leetar boobu waxoon na ne mi ngi ko tàmbalee ci indi inni amurukum bi taqwallahi fay fa innahu taala akramu min kulli karimin mooy lim ci njëkk a digle mooy maa ngi leen digal ngeen dagal yàlla ngeen ragal yàlla yàlla mi nga xam ne moom ku màgg la te itam moo gën a tedd lépp maanaam yàlla mooy borom teranga ma ne ne yàlla rek sax moo tedd ndax teranga joo fi gis ci teraangaam la bàyyi ko loolu waxoon nañ ci lu yaatu waaye ragal yàlla lu ñoroon Sëñ Tuubaa la boo seetloo man li ma xaw a jàpp mooy jàpp naa ne mboolem mag ñi nekkoon ku ci ne defal na la dénkaan boo toppee dénkaan ne gis ne daanaka ñëpp dénkaan dénk na leen surtout mag ñi njëkkoon a ànd ak moom ku ci ne defal na la dénkaan def nañ dénkaan yoo xam ne murid yëpp la ko boole itam waaye doo ci gis daanaka dénkaane boo xam ne ragal yàlla amu ci ragal yàlla loolu lu ñoroon suñ tubaal <coughs> bu ko defee itam ragal yàlla foofu liñ ci duñ ci taxawaat waaye dañ ci indi ni ko lan mooy lan ndax ñu bari dañuy laaj ragal yàlla moom mooy lan ndax mooy tiit rek jàq jàpp na yàlla moom dalay duma te loolu nag boo ko dëgg ragal yàlla ragal yàlla moom sëñ Tuubaa boo gisee ci minam ni mu ko daa tekkee mooy def ndigal yi bàyyi tere yi noonu la ko sëñ Tuubaa daa daa daa daa tekkee imaamu ali al imaamu ali ibnu abi taalibin bi bi muy tekki ragal yàlla dafa wax ne mooy huwa al xawfu min al jalili wal amalu bi tanzili wal amalu bi tanzili wal qanaatu bil qalili wal istidaadu li yowmi raxiili mooy ñeent yooyu mooy nga ragal yàlla moom yàlla nga bàyyi ko xel yàlla moom koo gis mu ñime ko daa umpale kuy yàlla yàlla koo xam du ko ragal dana ko ragal waaw ñi la gën a jege yàlla ñoo la gën a ragal yàlla wax naa ne yonente bi sallallahu alayhi gis nga mi nga xam ne moo gën a jege yàlla ñëpp waaye gis nga mooy ki gën a ragal yàlla ci jàmm inni la axshaakum lillaahi wax na ko mooy maa leen gën ragal yàlla ñëpp ndax yàlla ko xam doo ko ñeme ndax coobaram lay jëfe lu ko neex def te dara tënku ko te kattanam yëmul fen te coono bu ne man la ko teg te doo ci man dara te doo sañe sax jàmbat ndax yàlla moo la moom coono yi mu lay teg lu metti metti moo xaw garab yi ngay boxam xam ni muy muy rot sorewuñ ndax kenn nga ci mbindeef yi ko mbindeef biir mbindeefam yi rek yaag sa xobu garab yi yéen a yem ci moom moo la sàkk-sàkk ko te adduna bi yaatu na ak li xew ne yaatu na yaatu boo xam ne yow sa mbir ci yow lay metti nii waaye day mel dara xew mi mel xobu garab boo nekk ca digg àll ba wala sànq nekk ci digg àll ba nit dëgg taa dëgg ko fa mu daanu mu mu jaxasoo faatu loolu metti booba ñun kenn du ko yëg sax ndax duñu yëg ne dara xew na mooy yàlla dara rëyut fi moom dara rëyut fi moom kon ragal yàlla lu sëñ bi fonkoon la lu mu daa digale su imaamul ali kon loolu dana moo ci jiitu mooy alxawfu min al jalil waaye mu teg ci alxamalu bi tanzil mooy jëfee li alxuraan santaane moytu terey terey terey suñu borom alhamadu bi tansir mu teg ci lan alqanaatu bil xalil mooy li nga am mu néew mu bari mu doy la loolu nee na ci ragal yàlla bokk loolu la ko imam ali teg teg ca nag ne al istidaadu li yowmi rahil mooy di waajal nag di waajal dee waajal ne bis dana ñëw nga jóge fi comme ni noonu wax léegi ci kilifa gi ginnaaw kilifa yëpp dem kilifa lu mu rëy lu mu rëy rëy ci sa kii ne tuut nga dégg ñu ne la génn génn àdduna kon kenn du des fii ci àdduna si bu ko dee kon loolu imaam Ali wax na ne mooy ragal yàlla te ci am benn nettali bi moo gis sëñ bi nettali ko mu bëggoon ko kii waaye dama xamatu fu ne ci wàllu kon nu jàll rek ci li ci topp mooy sëñ bi da caa teg nag ci dénkaan boobu da caa teg ne wa amurukum bi iqtifaa'i ma ata bihi minhu taala al mustafa alayhi salaatun wa salaamun wa barakatun tustawa maa leen digal itam ngeen farlu ci li yonente bi sallallahu alayhi wa ci topp yonente bi sallallahu wa sallam te mooy topp sunnaam moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sunna si yonte bi nag man nañ waxoon naa ca jamono jataay yee weesu ne kuréel yëpp dañuy wax ne moom la ñuy topp waaye boo ci bëggee lu gàtt mën nga ne mooy la sëñ Tuubaa nekkoon rek doon ko jàngale soo ca nekkee yaa ngi ci sunna si yonte bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko dee mooy lépp looy def rek na ko teg ci tegtal na ci am tegtal bu wér ci sariya bul def lenn loo xam ni amul tegtal bu wér ci sariya sa jaamu yàlla yépp na tegu ci lu wér ci loo xam dafa dëppoog li alxuraan jàng ak sunna su yonte bi te sëñ bind ko ci téere yi wala fuqaha yi bind ko ci seen téere bu ko defee itam lépp looy def ci jëflante itam jëflante ak nit ñi da ngay fexe bam tegu ci sare boo gisee jafe-jafe yi am yépp sori lii sëñ wax mooy mooy ndi mooy topp yonte bi sallallahu alayhi wasallam moo ne ko indi ci misaal ci wàllu nit ñi dundee ci société bi dangay xool ngénte ngénte maanaam ci lislaam diglewuñ ñu woot ñu woote ko ngénte bi ngénte kenn daw ko woote ci jamono ngénte moom dañuy dañuy digle waaleykum salaam dañuy digle rek boo amee xar nga rey ko bu ko defee ña fa ne ca kër ga ñu lekk ci loo ci mën a saraxe nga sarax ko ci mu sarax waaye niñ koy defee ni woote ko xew dajale alal li yow li nga fi liggéey daaw ba ren nga def ko ci tàmbaliwaat seeru dootoo yor dara loolu coono la boo xam ne ñëpp koy jàmbat fi ne borom kër yëpp ci am jafe-jafe loolu nag boo gisee yàlla digalunu ko danoo wàcc lanu yàlla digloo masalan fi ne dëj danay gis koo xam ne bu bu nit faatoo rek ñu gaaw leb aw nag leb aw nag dem leb ca te liñ fi jaale lépp du mën a fay nag ñu tàmbali nga xam ne tey waa ji li mu fi bàyyi ci alal la ñu tàmbali di ko ci dugg eh, fi ne boo demee ci miraas la ci yëpp doo fekk benn xaalis dañ laa ne bàyyiwu fi dara fekk bàyyi bàyyi na ko fi waaye dañ ko def ci dëj te yàlla diglewul fi ne maanaam ni ñuy dëj nii ah, bu lislaam diglewu ko lislaam li ñu digle mooy alayhi salaatu wassalaam lislaam ni mu digle mooy maanaam waa koñ bi ci boobu togg indi ni ñuy def di jox xaalis yooyu yëpp nag fi nañoo ko ci dugal ngir dimbalee ko néew bi ak dimbale leen ko waaye waaye bokkul ci kii man sax li ma bëgg a mooy loo gis nu am ci coono rek sori buñ sori topp yonente bi sax alayhi wasallam moo nu ko indi waaw wadum ala sunnati wal ijmaai loolu sëñ moom digle na ko ba tey danañ ci ñëw incha allah ci lu gën a yaatu kon loolu mooy ñaareelu ndigal li ñetteel ndigal mooy wa amurukum bi taallumi wa bi taalimi li wajhi llahi taala al alim mais maa ngi leen digal ngeen sax ci sàkku xam ak di ko jàngalewaat te yàlla rek tax li wajhi llahi taala al karim nag ba tey ndigal lu am solo la te itam cosaan la ci yoon wi mooy sàkku xam-xam ak di ko jàngalewaat soo ko soo amee xam-xam kon loolu ba tey mooy ñetteel ndigal li te waxoon naa lu yaatu ci xam-xam moo tax loolu duñ ko baamuwaat mu ci ne wa usikum bi imtithaalil awaamiri wa jtinaabi nawaahi maa ngi leen digal itam ndigali yàlla yi ngeen di ko def def ci seen kem kattan di julli di woor di natt asaka su en ko su waree ci tey dem makk su ngeen ko mane te di tudd yàlla di jëflante ni jëfle ci rafet di wax dëgg te bàyyi jëwante bi mooy yi sëñ bi digal yooyu yëpp sëñ bi jàngale wat na ko te mooy ndigal yàlla yi nga di ko def su ko dee boo ko dee ba noppi nag yi yàlla aaye na nga moytu ko mooy bul naan sàngara bul dem ci jigéen joo tëkkul bul njaalo bul def yooyu yëpp ci def dara bu ko loolu kon mooy ndigal yi tere yi sëñ bi teg ci ne wa bi taxaafuli anil maasi mooy mooy yàlla itam na ngeen ci sàggan mooy na ngeen moytu mooy yàlla mooy yàlla lu lu lu lu bon la ndax mooy buntub sawara la sëñ Tuubaa mooy yàlla mooy buntub sawara yàlla sax moom baax na baax goo xam ni mooy yi nga koy def ni wàññiwu ko dara te bis boo ñëwee ci moom tuub jéggalu mu jéggal la waaye li fi yaa ngi ci cadre mooy rek da nga dugg ci buntu masan yaa ngi ci yaa ngi ci frontière yi maanaam maanaam ak keefar ak dem sawar daa wóoru dal mel ne bërëb yoo xam ne dafa dansé li nga xam bërëb yi dansé li gën a wóor mooy nekk ci genn wet gi nga xam ne mooy ndigal yi wala boo defut benn ndigalit nga bañ a mooy yàlla <coughs> mooy yàlla dafa bari ay jeexit mooy dafa bari ne nit ki bari na jafe-jafe yu muy am te mooy yàlla ko koy indi fi mooy yàlla day xañ xam-xam masalam kii mooy yàlla ni lu mu jàng da koy fàttali jëf waaw rawatina rawatina rawatina xool lu xaram wala moom moo gaaw ci ci yàq ak mokkal moo gaaw ci yàq ak mokkal imaamu shafii dinaa ko nett lu bare bari doon ko mën a mokkal benn bis muy dem ca marché ba wala mu doon jëndi mburu romb benn soxna neena teg ci bëtam xool ko xam nga lislaam bu xool bu njëkk bi nii moom du la ci teg dara waaye boo xoolee te teggi kooku moom ñu tàmbali bind bakkaar soo xoolee teggi ba pare tegaat itam loolu it ba tey ñu ñu bind bakkaar moo tax yonte bi daa wax Seydina Ali ne ko laa tutbii nadratan mooy boo xoolee bul ca bul ko ca bul bul xoolaat bu ca tegee ci loo xam ne lu xaraam la ni gaawal teggi waaye teg tegaat boo ko dee ñu tàmbali moom wala nga teg rek te teg ni lolou ba tey ñu dam li te bind bi dem li fek ya ngi teg rek ñu bind rek 100 200 300 400 500 quatre ba karu ngay ngay teg rek mo ta jamono ji mom mom doy war nak journal sax bokay koy na nga gis léeg yo xani ki def journal bi léeg limi sol kenn xam lu lu ay awra moo tax bari imaam Shafi'i nag ba mu gisee loolu ci jigéen gi mu dellu ca daal ji gis ne lu mu jàng rek tam di fàtte léegi li mokkaloon lépp tam lu ko fàtte mënut a mokkal lu bari bu tare rek tam mu jàmbat ko nag sëriñam bi ñëw wakkiyan wakkiyan wax ko lan ne ko mooy li imaam Shafi'i wax wakkiyan mooy li imaam Shafi'i wax ne sakawtu ila wakkiyan su a xewdi fa arsadani ila tarkil maasi wa axbarani bi ann al ilma nuurun wa nuurullahi laa yoxtaali xaasi nee na dama jàmbat sama sëriñ bu wakkeex ñàkk gi ma ñàkk mën a mokkal mu ne ma da bàyyi mooy yàlla yi ngay def mooy bàyyil xol xol lu xaram boo ko dee xool mënoo mokkal daanaka loo lu sax ci yow loo jàngale da koy fàtte ndax xam-xam ak leer la te leer mooy yàlla lëndam la ñaar yooyu mënuñu ànd moo tax muy loo xam ni te mooy yàlla itam bari na lu muy def mais day wowal xol wowal day jafeel mbirit nit ki xam day moo yàlla ni daanaka dina mën na ko lijjanti waaye mbiram day jafe day day lool te li fekk jégguluwoo daanaka ba yàlla jégal la fi ne daanaka ku la ñaanal li du du sotti fi ne ki ngay ñaanal boo gisee ñaan ñuy bëgg nga jéggal nga nga jiital ci jéggulu yàlla moy lo meuna ñaan te jéggul wo yalla xam nga yow da nga togn mom suñu borom bala nga def dara da nga wax ne jéggal bam jéggal nga doog ko waa nag may yow xëy suba da mayma nanga mayma nanga te yow yaa ngi ko togn yenen togn yo xamni lolu même bu la bëggee dimbali sax ak bu baax mën na la da lay faral kon bakare te bañ la jox li ngay ñaan bo jëkke jéggulu nak motax ñaan jéggulu mo ci jitu buñ ci ñak wala ci masaali loolu la si kon mooy yàlla sëñ bi wax ne kon neen ko moytu wat tajaru yi rawatina nag dëgër maanaam maanaam dëgër bopp ci ci ak mooy yàlla ak nuuru ci loolu moom sëñ bi daa wax ne moom mooy li yées moom maanaam nekk ci mooy yàlla ba pare sax ci wóor la lii lu bon la ndax su ndax doomu aadama itam ni ko yàlla bi ne léeg faw muy muy jàdd ndax dafa néew doole te bànneex yi yàlla yi yàlla yi ko yàlla mooñaaleel maanaam diis fi moom moo tax maanaam léeg-léeg rek seytaane man ko waaye yàlla li mu bëgg mooy fa la seytaane may nga nga del si tuub jégglu fi ne boo gisee ñi nga xam ne dañuy def fu leen fu ñu defee mooy sax ñëw jégglu war yàlla yàlla dafa wax ci alxuraan ne da leen a bëgg ne allaha yuhibbu at tawwaabin tawwaab mooy koo xam ni day mooy léegi rëccu ko lool daal di ñëw jéggaluwaat yàlla jéggal ko waaye gannaaw ba bakkan na mënaat ko mu dem defaat geneen beneen njuumte waaye nee bu del si waate yàlla jéggal ko boo lëggee mu ko ñëwaat yàlla jéggal ko gannaaw moom saa yu ne dana fàttali yàlla xam na yàlla am na mu jéggalu ko rek yàlla ne ñooñu moom dama leen a sopp dafa leen a sopp inna allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahirina kon loolu sëñ bi moom la wax foofu teg ci nag wa mulazamati dawil malaahi maa ngi leen di digal itam ngeen moytu di ànd ak ñi mooy yàlla fokkat yi ak moykat yàlla yi bu leen ànd ak ñoom sëñ Tuubaa wax naa ko rek keroog mooy daa wax ne jikko day wàlle jikko day wàlle koo àndal rek indal innal muqaarina bil muqaarani yaqtadi te ndox ca ci na yaakaar naa mooy ka ngay àndal rek fi ne kooku ngay bokkal jikko moo tax koo bëggul jikkoom da nga am bul ànd ak moom moo tax sëñ Tuubaa boo gisee bi ku masaa jox wërdam yi di al wërdul maaxuus da ca bokk ci sart yi mooy mooy ànd ak ahli taatillaahi moytu ahli maasiyatillaahi di ànd ak ñiy topp yàlla ak ñiy jéem a baax moytu ñii mooy yàlla loolu dafa bokk ci suróoti jël wërde boobu mooy bokk ci tarixa bi rek maanaam képp ko xam ne bokk nga ci tarixa al muridiya fi ne sañoo di ànd ak ñu bon ñi ak ñi nga xam ne dafay mooy yàlla yu rëy rawatina nag ñu ñu du ca dëgër sëñ bi teg ne wa amurukum bil amali bil maalum ma al aadaabi maa ngi digal itam li ngeen xam ngeen di ko jëfe xam-xam nag lu mu bari bari wante ak jëf moom moo moo moo pënd buñ buñ wal mu naaw rek ñooyam moo tax sëñ Tuubaa bi muy ñaan ca euh, Matlabul Fawzayni da wax ne wañaal binaa yi binaa ilmin waaye wa mooy sama tabax bi ak li may tabax na nekk tabax bu tegu ci xam-xam waaye sëñ bi xam na ne xam-xamu kese bu tegul ci bu antu jëf amul njariñ mu teg ci waa ilmi waaye jëf itam mooy li ñu waxoon bu lu mu rëy rëy te tegul ci sunu suñu bi du am benn njariñ fa yàlla mu teg ci waa amalin bi sunnatin teg ci wax mi xel mi mooy lan mooy su nekk ci sunna itam boole ko xadara joo xam ni ku wax rek nga nga faat ko mbaa nga dugal ko nga jàpp ne sawara la jëm loolu it ko teg yoon wu baax wa si bi rek ci waxel mi mooy jikko na ànd ak jikko nag ju rafet ak yërmande ak woyof sallallahu alayhi wa sallam mu teg ci itam ne <clears throat> wa amurukum bil amali bil maalum mahal aadaabi aadaab mooy ay teggin dañ ko boolee ki teggin fa inna hadihi salaasati wasailul arab ne ko dafa wax ne yii ma leen digal jumtukaay yi nga xam ne ku ci ngoy da àgg ci la bëgg sa aajo dana faj yi nga xam ne moom nga mën a am ba sa aajo faju ci yàlla li nga bëgg ci yàlla nga am ko mooy lii ma leen digal ñett yi dégg nga mooy ragal yàlla tey jëfe te nga am di xeeñtu li yonent bi sallallahu alayhi wasallam indoon tey sàkku xam-xam di ko jàngale ngir yàlla di jëfe ndigal bàyyi tere yi moytu mooy yàlla tey jëfe li nga xam boole ko teggin loolu da wax ne mooy wasailul arab daal ca teg ne wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh maa amiltum bi wasiyati hadihi allati la tantahi xuyuruha wa raxamaatuha li feeg yéen a ngi jëfe sama dénkaan bi dal dénkaane bi nga xam dafa del ak ak yëw fees del ak yërmande ak yërmande ay rahmaate yàlla ak barke li feeg yéen a ngi ko jëfe maa ngi ñaan yàlla def asalaatu alaykum wa rahmatullahi mooy yàlla di sotti ci yéen yërmandeem di sotti ci yéen jàmm ak mucc loolu nag liñ ci déggee mooy sun bàyyee jëfe dénkaane bii rek maanaam ñaan gi moom dootuñu amati xéwalu maanaam mooy dal sunu kam muy jàmm ak yermane jëm doon ñaan lool nak mas na ci dégg lu yaatu mooy suñ tuwaam li feeg ya-, yaa ngi jàpp yaa ngi ngooy ci ndigalam yi di bàyyi teram yi mbooleem li ñuy dig ci murid yi ak li murid yi war a am ak lim digee moom yow ba sa sa sa sa sa xel sa sa jot rafet ci yépp da nga ci jot bu soobee yàlla mu wax na ne moom ñi ànd ak moom danañ am lu kawe seen jot ci yàlla loolu wax na ko ma faaqa dannahu billaahi jaariya rafiq waaw wax na ko mooy ki ànd ak moom faw dana am lu kawe njortam ci yàlla kawe njortam mooy yow li ngay xalaat nii ak li ngay bëgg xaw bëgg maanaam maana lu ko kawe daa am te xamugoo ko boo ko xamoon danga ko bëggoon bis boo dee nag ba jandoog moom walla nga faatu ci nga koy xam loolu yooyu ko kawe nag ca ca moom la gën a rëy rek moom kenn sëñ bi loolu yàlla kenn sëñ bi itam sëñ bi wax na ci yu bari fii nu nekk ci àdduna du fi am benn coono du fi am benn jafe-jafe léppam yàlla da ko yombalal ci àdduna ak alaxira loolu moom moom la sëñ bi wax ci murit waaw taabudi taalluqin bi yezuul mooy sab coono day dañ te itam di kulli man bi taalaqa najaa min kasari dunia maanaam àdduna itam jafe-jafe yeeg problème yi yépp da nga ci mucc murid yu njëkk yi mosuñu am benn jafe-jafe fii suñ dëkk bii rek am na seen Cheikh Faye ñoom wax seen bàyyi bu day wax ne ñoom dañ daa dañ daa toog seen kër ba guddi gi duñu am benn duñu am dépense suba waaye duñ ko yëgal sax seen yar dañu bàyyi ba xëy suba ju ndékki toog ba mu naaj ñu doog a dem ci dëkk ba lijjanti ci luñ def dépense <laughs> te buñ demee daal di am dara indi ko bu ko defee togg maa ñooñu amuñu benn jafe-jafe mën nañu bañ am lu ne gàññi waaye waaye luñ jub rek loolu saafara ndax adduna du woon seen yitte moo tax loolu nag murid yëpp daanaka la ko yàlla la ko yàlla def boo gisee dangaa gis murid yee ca ca Mauritanie dañuy wax ne Cheikh Mouhamad Misk wax ne day wax ne seet na ne ñi fa nekk ay murid nii jël wërdul maaxul dañuy salaaxul xaal salaaxul xaal mooy mooy daanaka duñu am problème ko fa fekk dañuy reetaan nekk ci jàmm duñu am ay jafe-jafe ndax seen mën nañu sax ne jafe-jafe bu ñëw daanaka dend ci xaal boobu nag mooy ki ànd sëriñ bi loolu la ko yàlla taw feex ak yeneen ak yeneen yu bare bare yoo xam ni yoo xam ni xëy na waxtaan nañ ko ba tàyyi léegi nag loolu nag su sa ànd ak sëriñ bi wéree na sa xel na moom da koy daa tàmbalee gis jeexit waaw barke bi ak tawfiq ji nga xamne mbir yu bare bare yalla diko ko saafara ci dimbali te lo jub rek lu mu reey reey ci jafé jafé nga jëkke gis mu saafara waaye mi nga acci na ngay jëfe ndigal sëriñ su fekkee nga nek ci la la neex ci problème ngay dëkk te do am ma li señ bi wax mom yooyu yëpp do ci gis dara bu ko dee nga tàmbalee sikk sak fekk yow ya jëru ci yoon li ci am sëñ Abdourahmane wax ne kam man yuharriku kam man yu kam man eh, ko bamba bamba kam man yuraddidu bamba bamba wala yuharriku sakinan fi nahjihi almarsumi ni wax bamba da bari bamba bamba te fek li señ bi diglé mom duñ ci jëm dal légui nak mëno mëno mëno mëno bok ci muridi te jëfé won digal señ mom loolu mo mënta ne motax señ bi wax fi ni moy li ma len ñaanal li feek yeen ngi jëfé denkan bi rek yalla len di dal loolu mooy bu ngeen ko bàyyi jëfe rek te nga am ñaan gam kon ñaanatu ma loolu lay tekki mboolem yim diggee itam noonu la noonu la yim la yim diggee bala nga àgg ci xéewali digge yooyu da ngay jaar ci ndigal yi waaw waaye jëfewoo dara ci ndigal yi ba nga àgg ca digge yooyu loolu xam nga sottuwut sëñ bi wax na li kulli man bi yataallaqa najaa min kadri dunia wa fi yawmi najaa mooy ku aju ci man di nga mucc fii ci jafe-jafe yépp lépp luy naxal du la du la jege luy nax naxi àdduna mooy problème yi àdduna du la jege àllaaxira itam mën fa dee da nga mucc waaye ba mu waxee li kulli man tax la yooyu ay bégle la waaye wax na yeneen yoo xam ne ay ay ay mooy fa kul fa kul bi yaloosu fal yu dim tilaawatan xam nga loolu digal la murid bu aju ci man saxal bi set mu jàngal xuraan masalan nga kon loolu mooy ndigali moom mooy yoon wi maa ci ngay jaar doog a mën a àgg ca xéewati di jàpp ne nag di nga di nga àgg ca xéewati yooyu yàlla yàlla sëñ bi digee yàlla jagleel ko ko jagleel ko ñi mu àndal te jaaroo ci lenn ndigalam loolu moom nax sa bopp la yàlla yàlla musal ci loolu kon lettre boobu foofu la yem léegi nag ci lettre bi ak yi ak bayit yi ma waxoon ci la sëñ bi sukkandiku ba wax ne kon ak murit yii mooy yii mooy yii mooy mooy yi ko yi ko kenn yi ko téye kenn yi ko téye mooy mooy mooy mooy mooy mooy xam-xam xam-xam ak jëfe ko yaa ngi dégg ak lan ak ak maanaam ay teggin ak ànd ak ab sëriñ ak ak ak maanaam yéen demee ay jikkook yëf yooyu yëpp nag dara bu ci ne doo ko beralaat buntu bawum indi ci ci sañ wax lépp <coughs> ko dee kon li ni jeexal rek mooy loolu fekkee am na laaj ñu motalee ko mooy sëñ bi daal loolu mooy ay ndigalam yooyu it mooy ay tereem wax na ko ci bërëb yu bari am na fu mu wax sax ne ci majmua bi wane na gis mu wax ne xudil awamira xuus mooy lan mooy na nga ngëpp te mooy te jàpp lan ngay jàpp alawaamir mooy ndigali ndigali yàlla maxamti saal yi boole koog nag di topp topp lan ak jëfe waaw ak roy ci ñi nga xam ne ñoo koy jëfe waaw xudir awamira maxamti saal yi yasun ka man jalla anil misaal boo ko defee day yàlla mi nga xam ne ëppante nag du nuroo kenn dana la ñong da nga la ñong moy dana la ar la ar ba kenn du man ci yow dara wa seigne touba wax na ne sax motax seigne touba fi ne loolu wax na ne ñi and ak mom ya leen di ar ci aduna ba kenn du man ci ñoom dara ku dal seen kaw yaq ku ñu dal sa kaw nga yaq <coughs> mi ngok motax waye nak loolu sart bi mooy nga nga ngay ci ndigalam yi xusil awamira ma am tisaali yasun ka doog a ñëw man jalla an misaali mu teg ci wajtani bil manhiya anhu bi firaar minhu wa min xubbi dawi zulmi shiraar mooy na nga moytu itam tere yi yi yàlla tere bul ko jege fenn sa kem kattan rawatina nag bakkaar yu mag yi nga xam ne mooy ay naan sàngaraak rey nit ak njaalo fene fene sëñ Tuubaa lim na ko ca mun a mun a war suur waaye gis nga da caa boole ay jëw yooyu nga xam noonu moom lañu gën a wayfal jëw sëñ Tuubaa da ko caa boole ak yëg sa bopp mooy naw jëf xoj ngistal ak iñaan ak soxor ak yu demoon yooyu sëñ boo seetloo ko caa ñaar fukk la yoo xam ne da ko lim yu mag yi yooyu yëpp mooy li yàlla teral nga moytu ko nee na nag sëñ Tuubaa wax ne boo ko bëggee moytu nii ngay def mooy bi firaar minhu mooy da daw ci bërëb bi bi mooy yàlla yi nekk tey am na réew yoo xam ne am na réew yoo xam ne sallallahu alayhi wa sallam waa sëñ bi sa kii bi doo ko doo ko taxaw am loolu moom baax na ci yow la ak kii la réew bàyyi ko ah loolu de baax ko waxee nag da nga war a wax sallallahu alayhi wa <laughs> du am solo loolu moo kii yàgg na mi ngoog fi de masalan sëñ bi doo xam ne boo bëggee moytu yàlla tere da ngay fexe ba bërëb yañ koy defee nga nga nga jóge masalan am na réew yoo xam ne mënoo faa ne tëddoo mooy yàlla am na bërëb yoo xam ne ci Amérique am na fa état bu ñuy wax New Orleans Orleans yaakaar nañ ko bërëb mooy yàlla daanaka bërëb caay-caay ak mbon foofu la la foofu mooy fi fi Iblis daanaka maanaam manam taxaw bërëb yooyu nga xam ne tey jigéen ñi ca mbedd ma lañu def di di mel melokaan yi kenn xamul nga xam ne kenn du ay moom foofu fa la mën dëppe masalan bërëb boobu mënoo faa ne ba pare mucc ci mooy yàlla loolu mënta na sëñ Tuubaa daa ne bërëb yi nga xam ne fa lañu ñu mooy yàlla da nga fay da nga fay jóge yow baar yi nga xam ne fi dañu naan sàngara nga ne du ma naan sàngara ba pare dugg ci baar bi xam nga loolu loolu boo koy def bu yàggee nga mos ci ndax ñëpp dañuy mànd baar ba rek ñëpp dañuy mànd wala suñ daa ne bërëb yi ci boobu ngay moytu bërëb yooyu bari na ñuy ñuy def ak mooy yàlla fi ne ñuy tux ak di naan sàngara te fañ ko tàmbalee ànd ak ñu ko doon def wala nekk ci place buñ ko defee rek te la tàmbalee loolu mën nañ ci wax lu bare bare am na nit ñoo xam ne fi mu ne tey yoo xam daa neexuta net li waaye waaye am na nit ñoo xam ne gis maanaam ay ay ay ay ay ay tubaab yuñ doon yu ñu toogoon ñu leen defal ñu leen defal leen ay ay lekk ki naan indi leen defal leen ci sàngara boole di ba tubaab yi demee ñëw toog di xool loolu sunu ca mag ñi la jamono mag ñi la waaye xëy na ma wax ñu bari dañ ko xam ci dëkk bi waaye bañ fa toogee di kii ba mos ca biteelub sàngara ba keroog lañ tàmbalee naan sàngara yi la xam ne ko bàyyi ba nañ fi jóge moo kon jëmmi place bi nga xam ne ci la ak mbon ne Sëñ Tuubaa da nga koy moytu waaw te xeeti mooy yàlla yooyu moom loolu ci tàmbali dootu ko bàyyi moom yeneen mi din kenn waaw ñii naan sàngara daanaka kenn mën leen ko ay daanaka moom bu naaju tàngee sax ñu màndi naan sàngara dëkk dëkk bu naaju tàngee dëkk ñu màndi fii dëkk bi am na ñoo xam ne da nga daal fi xam ñoo xam ni bu jëmul luñ màndee sax dañuy wut dem wut laj ko la ñu naan ko ngir ngir ngir ngir man am na ñoo xam ne ñu mandi ba dee am na ku xam koo xam ne sëñ Cheikh Fatou Fall sax dañ ko tudde yàlla dogal sëñ Mass foofu muy dal ci Dakar nga xam daa dend ak ab baar baar baar boobu baar baar jabar jabar lañ ko wax benn bi sëñ sëñ Mass daa génn gis ko ne ko xanaa kii du diw mais comme xamu doon sëñ maas boobu lay dal mu ko la kiir diw mu ne ko ba la ba la te ko man léegi doontuma julli sax man léegi génn na ne ko man léegi tubbi na doontuma julli fekk moom mi ngi mànd xam ki màndoom moom li wax ci ëllëg sax mu ñëw di jégalu di wax waaye ginnaaw ba la mu def mooy changé baar rek nga xam dootu ñëwati foofu moom wala sëñ Mass wala sëñ Mass wala gi ma def waaye li ma bëgg a wax mooy ñooñu fii lañ ko tàmm bi ñu nekkee ndaw daa àndal di naan eh, lu sew sew ba mujj kii gis nga kii moo di sëriñam ko séeréer ne eh dara mu ne la ne ko eh, <laughs> sax fii dama dama doon léegi dama tubbi <laughs> waaye moom ma kii ñëw di jooy di wax di kii ñaar. <laughs> ay ginaaw bi tew taxul bu man ko bàyyi masalan daa am yoo xam ne boo ci duggee jenn dootoo ko bàyyi léegi bi diin iddimaan lañ ko wax koron dafa am lu ñu tudd iddimaan jàngoro la joo xam ne wala moo nafse dañ ko wax mooy chronique la lay jural ba fi ne seetaan masalan télé am na ñoo ne ci chronique ak seetaan film yi nii am ñoo xam ne ci chronique ndax dañ leen di feew dañ leen di faj bu dee ci réew tubaab bi dañu am ay ay ay ay ay ay ay fajukaay mm, yoo xam ne ñooñu lañ ci faj nga xam ne ñoom seen psychologie moo am jafe-jafe dañ leen di faj ci lool yooyu nag chronique moom mooy loo xam ne boo ci duggee ja kenn mënut a jaa génn loolu nag fa nga koy moytoo mooy moytu bërëb yi ak moytu ci lu néew lu néew néew nga moytu mooy tax lu ci di ci chronique moo sëñ wax ne loolu mooy bi ci jëkk ñaareel ba itam mooy bañ a bëgg ñiy tooñ wa min hubbi dawe zulmi loolu am solo mooy ñi nga xam ne ñi mooy yàlla di tooñ nii ñooñu danga leen di bañ a bëgg boo leen bëggee rek nit ki boo ko bëggee faw ngay jëf-jëfam fi ne ñi nga xam ne ñu bëgg waykat yu mag yi boo leen fekk daanaka dañuy wayan toog fii dama na ñi bëgg sëñ Tuubaa gis nga dañuy dañuy wayan toog xasida yi ak di wax lu jëm ci sëñ bi nett lii ak xisa yi waaye yow mënoo bëgg masalan ab saay-saay ba pare mucc ci caay-caayam googu déedéet waaw kon yooyu day wàlle moo tax mu wax bu lay dugg sax doo ko man nga ne man waaye laa bëgg nii rek waaye moom uma ak moom kii waaye fekk foofu la foofu la mbir may jaare xol xol yi ak ruux yi dafa am dañuy jëflante fi ne ni nga xam ne ab sëriñ tey bu ngeen àndee ruuxam mooy jëf ci sa ruux loolu xam nga yow doo ko yëg même doo du looy kii mbirum mbirum batin moo xam ne du du du ñëpp gis noonu la lee am itam ñi nga xam ne itam ay nit ñu bon lañ ñoom it dañuy jokkalante ci ruux kon maa ngi noonu guddal foofu mën nañu yem foofu ba ëllëg ñi ñaan yàlla mu defal nu dégg ak topp te saxal nu ca yoon woowee nga xam ne moom lu sëriñ bi doon digle ak tere di moytu ay ay ay tere par ci Sëriñ Tuubaa fekk am na benn laaj mën nañ ko jeexal boobu nag ñu def ñaan incha allahu taala Hmm. Hmm. أيوه. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون jëmmi la waan sal naa ci moom. waaw comme comme lan la jiital si foofu noonu ndax daa mel ni daal foofu. ay ndax ñu xalaat daa mel ni waa Seydou Mana, comme buy wax daal ngir ngir ñuy xalaat daal. maanaam maanaam misaal yi wa tilkal nadribuha linnaas maanaam misaal yi waaye loolu daa mel du du boobu misaal rek misaal yi yàlla joxe ci alxuraan yépp rek yàlla da ko def ngir yee xalaati nit ñi ngir ñu xalaat ci kawte bi xam nga am na yeneen yu wax ci yeneen yeneen la xalqu samawaati wal ardi inna fi xalqi samawaati wal ardi mu ngi waxee ca baqara ca suratu ali imran inna fi xalqi samawaati wal ardi واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما maanaam boo dem kawte fi yàlla def yëpp yàlla da koy tudd léeg-léeg wax ne dafa bëgg nit ñi di ci xalaat am saal yooyu nag mooy mooy misaal yi misaal yi yàlla jox ci alxuraan yëpp dafa bëgg ñi di ci di ci léegi bu ci xalaatee nag la fam leen di yóbbu mooy ñu xam màggug yàlla gi xam lu mel ne turam yooyu mu wax foofu huwa allahu alladi laa ilaha illa hu nit ki nga xam ne dafa jëfandikoo xalaatam day gaaw a xam ne yàlla benn benn buur la ñaari yàlla mënta am ndax ci aduna si rek ñaari président mënu ñoo sequm réew ene président bu réew moo dem ñay opposé sax dañ leen day fexe ba du am du am koy opposé ku mag ñi dañ leen di faat ñi ñu fexe ba faaga leen ñi ñu yàq seen dar ba nit ñi duñ leen wóolati nong yële ñu génne leen réew gis ngeen sun réew bi xam ngeen loolu am na fi ku fi toog daanaka képp koo xam ne mën naa jël mën naa jël yëf yi day fexe ba tëj ko mbaa mu génne ko réew mi mbaa mu yàq daram ci nit ñi wala yu demoon waaye ñaari nit ñaari koy duñ bokk mbalka loolu la law kaana fihima alihatun illa law la fasadata mooy benn yàlla rek waaw su ko defee itam mbindeef it mënta nekk yàlla maanaam yàlla moo am ak ci ak lim sàkk <coughs> malik al yëpp tur yoo xam ne day day firnde rek màggu yàlla yi nga xam ne moom rek moo ko jago loolu nag xalaat bokk na ci li ko yee bokk na ci li ko yee waaye fii nag li fi jiital nag moom misal la moo ci alquran ci alxuraan loo anzalna haadal quraan alaa jabalin ra'aytahu xaashi'an maanaam alxuraan loolu jëmmi alxuraan mbirum dafa maanaam maanaam bokkut ak alkitab masal alquran bokkut ak alkitab bokkut ak almushaf ñaar yett yooyu rawatina borom xam-xam dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy teqale doomu aadama nag moo ñime te mën a tooñ te te réer te umpule ba tax na masalan alxuraan ji yépp mën na koy jàng ka jàngaat te def ci moom benn jeexit masalan du yëg sax ne lii waxi yàlla la waaye masalan montagne yi ak yeneen yi yàlla sàkk nga xam ne ñoom xam nañ yàlla moom noonu noo umpale yàlla fi ne garab yi noonu gën a xam yàlla mel ñoom ci ragal yàlla lañ ne moo tax yàlla amaana boobu mu wax ne ba mu yàlla wàcce amaana wàcce ko ci montagne yi montagne dañoo daw ne ko luy maanaam lii yàlla def doomu aadama natt biir mu natt ni indi nu fi loolu da koo njëkk a gaaral montagne yi inna aradna ala samawati wal ardi wal jibaal arad na amaanat ala samawati wala wal jibaal wal jibaal maanaam asamaan yi suuf seeg montagne yëpp yàlla dana gaaral lii mun def nii mu bëggoon leen ko def mooy nattu leen jox leen am xel jox leen ak tànn de nattu ci àdduna ñu ñëw fii ba xam danañ jaar ci yoon wi yàlla bëggam dem waaye ñoom ñëpp ñu ñu ñu ragal tiit dellu ginnaaw maanaam kan moo ko jël wa xamalaha al insaan waaw doomu doom moo ko moo ko jël te moom daa xamul daa umpale ni mu xamul ni mu umpale noonu la nag umpale wax yàlla ji itam loolu man jëmmaa firi aay bi waaye nag alxuraan firi ko aajana yu bare bari waaye loolu mooy mooy dégg ma law anzalna haadha al-qur'aana alaa jabalin la ra'aytahu xaashi'an mutasaddi'an min xashyati llah maanaam alxuraan ji ni bu ci yàlla wàqante woon ak montagne yi moo tax seenu tiit dana tax maanaam dañuy dañuy tasaaroo gisoo Seydina Muusa ba muy deeyaale ak suñu borom ba wax ko ne ko dama laa bëgg a gis andur anduru ilayka nu mu ko waxee xaala lan taraani walakin undur ilal jabal fa in istaqarra makaanahu la falamma tajalla lil jabali jaalahu dakkan mooy mooy suñu borom dana ko yow mënoo maa gis man doomu si ci monde bi nu ne nii mënuñoo gis yàlla ndax yàlla masalan ci ci misaal nekkul ci nekkul ci place maanaam maanaam maanaam maanaam espace ni tënku ko xam nga yow nun liñ mën a gis mooy loo xam ni dafa tàmbali fi yem fi am ay wet loolu lañ mën a gis maanaam monde bi ñu ne monde matériel la bokkut ak monde bi ñu mën a yàlla ne ko nag léegi dama li ma lay jox misaal mooy damay damay feeñu montagne yi bu fekkee ne mën na maa dékku nga doog maa mën a gis waaye fala ma tajal la rabbuhu lil jabal jaalahu dakkan montagne yi daal tasaaroo doon pënd ndax mënta tuuti ci leerug yàlla waxuma laak waxuma laak nag jëmmi suñu borom ja li mu koy gis loolu lu xaw a mel noonu maanaam moom rek la la la suñu borom ci ñu foofu misaal la moo xam ne ma ne ne doomu aadama yàlla wàqante naa ak moom ci alxuraan wax ak moom loolu lu rëy la dara gënu ko rëy te yeneen mbindeef yi amuñu ko te yeneen mbindeef yi ñoom ñi xam yàlla xam ak màggam su yàlla waxoon na ñoom ñi danañ tiit tiit goo xam ni maanaam maanaam dañuy dañuy mel ni luy gën di tuuti di jeex ba seey parce que loolu tuuti la ci maanaam ñu mën a dégg ci ci ci ci ci loolu alquran nag borom xam-xam yi dañuy wax ne mooy wax yàlla ji dëgg-dëgg léegi alxuraan yi nga gis ni ñu bind ko ci kawn bi day tekki wax jooje fi ne ay jëmmi wax yàlla jooje du ay xaraf du ay baat bokkut ak bokkut bi nii bokkut ak nii ñuy waxee ni lii nag mooy tekki jooje yaa ngi dégg loolu mooy ma mooy gàttal gi yàlla yàlla defal dégg topp mas naa yem ba beneen beneen alxames bi sooba yàlla aouzu billahi الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة له ما ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات ولا يؤمن افتح لنا كل باب كنت الصالحين من الخيرات